nga joxal ma micro rek imam euh, imam Dramé yaa ngi yaa ngi ci biir euh, ah. Sans Limites TV tey Kër Ndanane tey dañoo ñëw fii euh, ci Grand Théâtre <laughs> projet bi ngeen nar a wone ah. gars yi dana nañu projet amul non Ngoné baal yow xam nga ne projet am na déet man xaw ma de maa <laughs> ñoo bëgg a xam ndax projet am na lay ñu ngi ah, di nuyu Sénégal yi ne ci biir réew mi ak ci bitim réew uh-huh. di nuyu surtout wa diaspora bi nag xam nga yi seen xel yëpp fii lay nekk uh-huh. ñu ngi leen di nuyu mais Ngoné uh. tey Euh, fàttaliku démb. Uh-huh. parce que tey bu tey neexee démb moo tax. Uh-huh. fàttaliku li fi jaar. Uh-huh. Euh, du yomb nag parce que li fi jaar neexul woon waaw parce que ñu leader bi ñu am. moom fi mu jëm dafa leer ci boppam. te comme dafa leer ci boppam moment bu nekk ak li mu war a teg. lii dafa bokk ci stratégie yi ñuy war a teg pour xam ni fàtte xaju fi. fàtte xaju fi parce que yéen ñëpp ay témoins oculaires ngeen. damay wax ni réew bu la yàlla nattoo nga rey fa ay gor tëj fa ay gor tuumaal leen toroxal leen bu dee gor nga da war a tëj sa gémmiñ boo tëjul sa gémmiñ it ñaa am fulla dañoo war a tëj ñooñ ñoo war a tëj sa gémmiñ yow bu dee amoo ngoru tëj sa gémmiñ nit ñi ñoo war a def def defi pexe pour lu tëj yow sa gémmiñ. ci ci ci ci naka. ci ñaawteef yi fi am. Mhm. ngoone li nga xam ne PM wax na ko démb. Salma muy euh, carnage financier boo xam ne am na ay 2500 euh, milliards yoo xam ne dañu ko classé euh, secret défense. Mhm. yeneen li koppar tamit ci milliards déclaré ñu ko trésor non jàngate yooyu la kàddu. ah mais loolu loolu loolu ko ku nekkoon ci réew mi tey observé waru la bett. Mhm. Macky Sall yàgg nañoo naxee ay ay chiffres. loolu ab docteur Abdourahmane Diouf tey feddaliwaat na ko. ni presque fukki at ak ñaar yi ñu génn. ñëpp xamoon nañ ni réew mi chiffre yooyu ñu doon wax ni Sénégal am na ko ci wàllu économie. Mm-hmm. buñ ko amoon xale yi duñ jël géej gi ah. Mm-hmm. duñu profité di jàpp nit ñi di leen tëj. parce que ñoom ci ay tappale ak i fen lañ musa a yoree réew. PM mm-hmm. nag dama jàpp ni alhamdulilah rabbil alamin bi mu ko waxee ak fi mu ko waxee. parce que wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne ma dañ maa wax fuñ ma wax warta waxee. li arab yi naan li kulli makkaanin maqaal. maanaam dafa ñëw ci période boo xam ni sénégalais yi waroon nañoo xam ñoom lan lañ ci fekk. Ah, période bi waaw campagne bi du campagne du campagne xam nga ñi mu cité yow ngoone xam nga ne Amadou Ba li mu yor. ah di teg maa ba ñu ñu fàtte financé di ma wala ma témoin baal ma jël keneen. jëlal keneen rek jël Babacar bul jël benn témoin jël ko ci boppam. Amadou Ba boppam ko ci boppam. <laughs> doonul alal ci baayam. Uh-huh. doonu ko ci yaayam. kon bu ëppee alal ci réew mi fu ko jëlee alal réew mi la. Uh-huh. nañ waxante dëgg. Macky Sall criminel la loolu du information. parce que dafa réer période bi ma sœur uh-huh. ma daaneel li may wax nii. xam nga Sonko waxu fi lu bees. Uh-huh. dañu Amadou Ba war nañ laa woo. ma nu mu tuddati ca des Moustapha Ba. Moustapha Ba Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Daouda Diallo. mais ñii buñ leen di woo. ci la lañ leen di woo li ñu yoroon lañ leen di woo. waaw ñun ñii bu ñu jeexalee nañ ñu woo laaj ñu li ñu yor. mais loolu warul nekk warul warul indi benn information mu des nag Macky Sall moom criminel la reykatu nit loolu du information parce que dafa rey ay nit ñu gis ko. mu këpp kees ñu gis ko. yaa ngi dégg man ba ma dalee wax ni Macky Sall dañ koo war a jëli jàpp ko loolu loolu yàgg na. du tey kon waxu fi lu bees. Mhm. Sonko dafa fàttali rek te ñun ragaluñ leen. parce que ñoom matuñu ñu ay adversaire parce que sénégalais yi. ñoom ñoo def seen choix ci résime bi fi nekk. lii du régime politique. d'accord gis nga lii ku yaakaar ne ay politiciens ñoo ko fi teg wala ay pexe ko fi teg. xamoo li xew. Mhm. lii le peuple sénégalais ñoom ñoo dem ba gëm ni seen yëf la ñu koy protéger seen bopp. gis nga fi mu ne ni ñoom dajaloo biñ dajaloo ni mhm. moo gën ci ñoom. parce que léegi ñaari kuréel ñoo fi nekk ñi fi nekkal Sénégal ak ñi pare pour complot Sénégal. d'accord sénégalais yi nag gëm naa ni jox naa leen confiance que ni ñoom duñu weddi seen bopp. ku xam le peuple sénégalais li mu def nii ci premier tour gëm naa ni loolu lay feddali ci le 17 bu jotee. kon ñu ngi ñun dañuy dem ak xel mu dal di wax nii nañ ci dem rek. ak ndànk ah, mais yaakaar ngeen majorité dem ndax ñeneen ñi da a demal seen bopp majorité bi. du yomb risque ngeen jël ak yu ni mel. non ñun peuple bi lañ àndal bu ñu wax sax Pastef lañ àndal muy indi polémique mhm. Ousmane Sonko dafa ak président Diomaye peuple bi la àndal. Mhm. parce que tey ku bëgg lu baax. bëgg avenir u Sénégal ñii di nga leen jox majorité. Mhm. xam nga pour lan pour ñu mën a tabax Sénégal. d'accord fexe ba ay tappale ak i caaxaan ak sàcc yi nga xam ne dañoo sàcc alal réew mi ñu jàpp leen. Mhm. loolu jarul polémique te mënuñoo fexe ba duñ leen jàpp. parce que dañu jël alalu réew mi man defuma dara yow defoo dara kenn woowu la. ñi ñu woo dañoo def. waaw mais wet El Hadj li mu wax ne client woom. Euh, wàllum politique dong moo tax di ko may buzz nag. ñun li ñuy ah, moom suma sañoon duñ ko fi wax. waaw mais léegi li moom ah. euh, avocat bi li mu wax. Ah. ci wàllum euh, Lat Diop. ne wàllum politique. poids électoral bi nga xam ne am na ko géejuwaay moo tax ngeen ragal ko tëj ko. non yow Lat Diop dafa am fukki nit. Lat Diop liñ koy toppee xoola leeragul xamuguma fu muy mujj. waaye ngóone suñ magistrat yi képp ku ñu topp am na loo def mhm. yow topp ñu la man topp ñu ma topp ñu sa frère bi mhm. bugaa na ngi fii di saaga nit ñi te kenn jàppagu ko <laughs> ko kenn jàppagu mhm. kon tey saaga ma moom sax kenn du ko jàpp ci ay caaxaan d'accord moom bis buñ ko buñ ko bis buñ ko waree jàpp duñ ko jàpp ci ay caaxaan yi dama <laughs> la bëgg a wax ni ñun nekkuñu fi di jàppante waaw ñun jàpp kon Lat Diop li ma koy wax rek na na delloo bu dee dafa jël bu dee loolu lañ koy topp na delloo. mais est-ce que delloo kese doy loolu tamit day yomb. waaw xam nga ku delloo mën nañ laa mën nañoo xool waaw waaw parce que nag réew mi it kenn amu fi intérêt di tëj kenn wala di bañ kenn wala di en kenn. man man ko bi ma xam xolam dara nekku ci. Ah. ginaar sax mënu koo rendi waaye dafa am loo xam ne muumu ko yaa ngi dégg jomaay bi ma xam. Mhm. ginaar sax mënu koo rendi mais daf ci am loo xam ne ñoom moomuñu ko alalu réew mi la. Mhm. te diggante woon nag waa réew mi ni dañ koo war a delloo. yaa ngi dégg man yéenewuma kenn kaso wax dëgg yàlla la jóg fee mu nekk yéenewuma ko waaye nag na fàttali bis ba muy saaga Sonko it mhm. loolu a na ci bewte ko foo xam ne waaw saaga yaa ngi fii yéen it di ko génn di ko vaaraat <laughs> waaw man nag xëy na am na la ci kaso bi waxtaan ak yow quoi d'accord imam sant nañ la bu baax euh, euh, euh, gërëm la comme ni ñuy amee mbégte à chaque fois Ah, di eh, jàkkaarloo ak moom ñu ngi woon ci kaawu eh, Jérôme Bandiaky avocat bi nga xam ne mi ngi évoqué eh, lu jëm ci la loi d'amnistie ndax da ngaa ànd ak moom ci loolu. Euh, man kaawu Jérôme Bandiaky je pense que sànq bi ma liiree li ñu wax ni moom la avocat bi wax. dama dama tiit. Euh, mm-hmm. ngoone di tax ma tiit mooy. comment un avocat un avocat peut li fi xew. Mm-hmm. loolu c'est le passé. Mm-hmm. Sénégal jàmm la laaj. réewum jàmm la te jàmm la soxla jamono jii. Mhm. ça veut dire que en fait il veut dire que Dame Mbodj même su dee woon moo perte. loolu un avocat je pense que bu dee day plaider aussi waroo plaider noonu parce que boo waxee loolu ça dire que. ok moo ko def mais c'est le passé donc jarul fàttaliku. jamono ji Sénégal jàmm la laaj jàmm la laaj waaye bu ci dee woon nag. Mhm. kon jamono ji ndem si yàlla sax la ñuy wax. il faut pas dire ça. bakkan bakkan la waaw ñu fàtte ko sa mhm. sa il faut pas dire ça te un avocat aussi warul plaider noonu ci loi d'amnistie bi la bokk bokk ci loi d'amnistie loolu yëpp dina leer parce que loolu mooy importance su dissoudre bi ñu dissoudre l'Assemblée nationale bu ko defee bu ñu falaatee beneen euh, législature bu ñu ñëwee dinañu xam lan lañ war a dindi ak lan lañ fi war bàyyi mhm. mais kàddoom yooyu nga xamante ni yëkkati na ko moom je pense que day gën a dugal dugal li nga ki nga xamante ko euh, euh, li nga xam ne Euh, moom mooy euh, euh, li avocat Jérôme Bandiaky daal di wax ne mbir yi daat nañu koy am amnistie ci si boobu la président ak premier ministre daal di bénéficier wu ndax dugal client am la comme ni ko Salma waxee wala jéem koo sang wala ñu ne bokk lañ ko doon toppee naam am na lu mu ci def waaye kon dañu ko raxas ci si bi Ngoné man kay kii su doon maay Jérôme Bandiaky mm. bi mu paree conférence de presse laay woo samay mbokk ne leen changer ma avocat ah, si saa non non parce que avocat la boo xamante ni dafa def aveu mhm. c'est-à-dire que ni moom reconnaître na kon tentative d'assassinat bi am na mhm. waaye seulement que ni ay fait politique la amnistie nañ ko mais Dame Mbodj il n'est pas de passif oui. Dame Mbodj n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait à Ousmane Sonko mhm. ba nu war a amnistie tentative d' assassinat bi nga xamante ni moom lañ doon def jëmale ko ci moom. te yàlla moo ko dimbali ba vidéo de surveillance yi daal di mën a capter image yu Jérôme Bandiaky. <laughs> ndax euh, les tireurs d' élite là comme moom sniper mooy tireur d' élite yi. Mhm. nee na éclaireur bi moom moo ko moo ko moo ko joxul piste bu baax. Mhm. moo tax xëy na sax Jérôme moo tax euh, Dame Mbodj mu daal di survivre moo tax mu mucc mais au delà de Dame Mbodj kon ñaata doomi aadama ñoo xam xamante ni. ñoom waruñu woon rëcc kon la moom la liquidé. Mhm. nga taxaw tey jël nii naan ay c'est le passé réew mi dafa soxla jàmm ñu senegal ñun ñu si jàmm di ngoone gisoo leen kon nu mu bellee gisoo leen Salma nu mu ci jàmm man maa ngi nii maa ngi nekk ci biti ute naa heure daaw di maa nga ca kaso ba Salma waaw waaw réew mi mu ngi di ñun kay réew mi on a aucun dans un pays stable ñëpp a ngi ci jàmm ñëpp a gongo ñëpp a ngi xappi ñëpp a ngi rëy mhm. léegi nag nga taxaw tey jëlee nii <laughs> <laughs> Euh, dernier point bu ñuy euh, jeexalee. merci beaucoup <laughs> dernier point bu ñuy jeexalee non franchement non mais est est-ce lucide parce que ni di nga taxaw naan ay war a plaider sa sa client nga taxaw naan ay. nan fàtte non mais c'est incroyable. <laughs> merci beaucoup Mati euh, li ñuy jeexale rek mooy euh, tweet bi nga xam ne Juan Branco daal na koy def léegi nee na euh, justice française daal dinay fixé au 6 novembre 2024 sont délibérés sur ouverture de la procédure pour crime contre l'humanité intenté contre les responsables sénégalais dafa mel ni nag fu mu toll nii machine yëpp dañoo daal di ubbeekondoo waaw bu jara am na benn dimension internationale bu mu yóbbu loxoom daf ci daf ci dugg en réalité. parce que boo xoolee ba ñuy yóbbu dossiers yooyu yëpp ci volonté am ak engagement am ak sacrifice yi mu def. nekk avocat Ousmane Sonko ñu tere ko mu dugg ci réew mi. Mhm. ak fa mu jaareek yooyu yëpp nga xam ni volonté bu bu mu wane la te loolu mooy rôle am aussi. Mhm. parce que moom dafa nekk ci àdduna bi di xeex lépp loo xamante ni noo nooteel la. ak lépp lu nga xamante ni dafay enfreindre les libertés euh, individuelles les libertés publiques. Mhm. donc kon tey jàpp naa ni lii c'est c'est une avancée. le président Macky Sall ci magistrat ma mooy li imam Dramé wax léegi. mais dafa am ay faits yoo xamante ni quel que soit loi si bi ñëwam ki mu ñëw mënu ci dara. wax naa ko léegi.